ki ñu ma tuddee mu ngi tudd Alaaji Mamadou Dieng moom lañ ma tuddee euh, neloon na ca euh, weer yi li ñu yàlla ko yàlla xaare aljana mu nekkoon góor gu ma bëggoon waaye nag euh, biñ may déclaré Modou jaañ lañ ma déclaré donc sama kayitu juddu Modou jaañ moo ci moo ci nekk dàkkantal nag bi nga xam ne moom la ñëpp xam mooy fada alors fada pour waa ndakaarook ñi ma xamee université ak feneen ak ñi ma xamee ci euh, jeunesse politique yi faada pour ñi ma dëkkal Daaru Muxti ak ñi nga xam ne ñoo ma gën a gën a gën a xam waa Daaru Muxti faada la ñuy wax faada waa ndakaaru li ko naan fada sama benn bàjjan bu ñuy wax euh, ajaratu Awa Diagne yàlla ko yàlla yërëm tamit nekkoon sama magu papa euh, moom moo ma jox dàkkantal woowu mu ngi ko jëlee nag ci benn euh, góor gu baax benn góoru pël ñii ne woon benn sëriñu pël bu tuddoon Faada dëkkoon booru Daaru Moxti jadme plus précisément euh, bi mu ñëwee romb bis bi nga xam ne moom la ñuy tuddee mu ne sama bàjjen fii fi xew mu ne ko dañuy ngénte suñu taaw waaw mu ne ah seen ngénte bi neex na de xubbu na de mu ne ko ah dañuy ngénte daal suñu taaw mu ne ah tuddee leen ma doom ji. Ah, waaw dafa romboon. parce que buy ñibbi dëkkam quartier bi ñu dëkkoon boobu muy kër Aliou Ndiaye euh, fa lay romb. mu romb fa euh, ñi xam Darou Moussi xam nañ kër Alioune Ndiaye euh, mu romb fa di ñibbi ni waa fii lu fi xewoon booru tàkkusaan la dégg naa ñu ne ko fii dañuy ngénte suñu taaw mu ne tudde leen ma doom ji sama bàjj ne ko tudde nañ la ko moom xamu sama bàjj da doon kaf xaw ma wante daal tudde nañ la ko daal la ko wax alors léegi nag Fada moo gën a siw Moodu faada mooy faddilu mooy fadel euh, donc diminutifu tur yooyu la euh, moom mais ki ma tuddee aussi faada rek lañ ko doon wooye euh, moo tax nit ñi naan faada faada jaañ waaw waa daaru noonu la ñuy wax waa am na mbóot nag waaw mais mbóot mi laa dul wax <laughs> <laughs> mais am na mbóot mbóot mi moom am na ko am na mbóot parce que euh, ku baax kooku bi mu waxee ne tudde leen ma faada am na lu mu ca teg waaw am na lu mu ca teg mais loolu nag mooy mooy symbole bi loolu mooy mbóot mi nekk si si si ginnaaw mais loolu moom xam naa ne yeneen jamono mu gën a yaatu du ñàkk ñu mën ci dikk mais daal euh, effectivement am na ay ay mbir daal yum ci yum ci waxoon te nag euh, bi ñu màggee ñu koy commencé gis. d'abord bi ñu gënee nekk xale ah sama yaay su daan bëgg ma kontaan euh, dafa may woyal waaw te su ma daan woyal danaan Fada Diagne jógal sangu ji dootuma la wax lu lay naqari par exemple cest moom pour que pour me bercer c'est comme ça qu'elle le présentait alors. sama tante tante maternelle ba mu leen doon wax moom pëlub jàdme rek la mu daan wooyee pëlub jàdme parce que góor gi pël la jàdme la dëkkoon mu naan ma pëlub jàdme waaw boo demee nuyul ma pëlub jàdme euh, lu gën a lu gën a récent euh, faada ji daana ma làq police yi waaw gerew bañ nekkee ci gerew yi waaw ndax euh, euh, booba ñoom euh, Diagne Fada lañ xamoon. booba université. maa ngi université. jiite ndaw yi jiite grève yi jiite C nekk ci CED yeeg grève yeeg yooyu rek dama xawoon a léegi tuuti bu ma xawee gën a nekk gone. am na benn bis ñu nekk ci mouvement faculté du droit. Euh, yaakaar naa 94 la wala 95 no 94 la sax début année 94 ñu ñëw bëggoon a génne waa faculté du droit euh, policiers yi di ma wër mais chefu policiers yi dégg na tur mais xam naa ne jëmm ji xàmmeetu ko parce que booba xam nga dangay ngay col coloku coolu coolu guerrier daal coolu coolu étudiant daal ah nekk ci terrain bi alors bi ma koo gisee muy wër ma xam ne man lay wër ma mu toog ci benn banc mu ñëw tiim ma euh, noo tudd ma ko moodu Diagne ma ne ma Modou Diagne waaw ah avancé dëppaat mais c'est pas Diagne Fada <laughs> <laughs> ma ko si fada ji soog a soog a ñëw soog may jàpp dugal ba ci pañe à à bi. alkaati bi su ma mayoon cent rek dëpput ma sàkk pexe. <laughs> alors am na tamit benn bis euh, ñu toog ak président Abdoulaye Wade moo doon présenté benn chef d'état euh, agsi ba ci man ne ko il il s'appelle Modou Diagne. daa ko ah mais nous on le on, on le vraiment par Fada on l'appelle Fada alors waa ji ne ko euh, Fada parce que Fada a une signification en français ku ko bëgg a xam na nga dem nga dem ci dictionnaire bi <laughs> boo demee ci dictionnaire bi da nga ko da nga ko ne mais Fada <laughs> bon ça a fait rigoler euh, de beaucoup bon bref y a des trucs ça lettre bi moom même Daaru Musi sax bu ñu fa bindee Modou Diagne du jot bu ñu nee bu ñu nee Modou Diagne Daaru Musi du ma ko jot bu ñu nee Modou Diagne Dakar du ma ko jot mais bu ñu nee Fada jarul ak àgg directeur général Sonacos jarul ñuy àgg Daaru mus si ñuy àgg feneen bu ñu nee Fada lettre bi agsi waaw waaw waaw waaw Fada moom Fada daal moom ma ngi noonu moo tax sax d'ailleurs sama doom yi mujj juddu ma ne bay boo ma dugal ci Fada ji rek parce que xam naa ne Fada ji moom topp nañu ba di ci yokk rek ne. bu ñu nee Modou Diagne euh, c'est vrai alaaji Modou Diagne lañ ma tuddee mais moom tam sëñ Modou Awa Balla lañ ko tudde boo ne sëñ Modou Awa Balla Daaru Musi nag mooy moodu Kara waaw donc daa nekkee Kara moo gis wala Modou Awa Balla moo gis wala Ndaayaan moo gis tur waa Daaru Musi lañu te ci foofu la ñu soqi ko soit ñu tudde la ko directement wala que ñu tudde ñu tuddee ko ko voilà sama turandoo yëpp Fada lañ leen di wooyee alors y naa a euh, plusieurs macha allah maa ngi sant yàlla bu baax ci côté boobu parce que à mon âge euh, je totalise beaucoup d'homonymes waaw am na am na Fada yëpp am na am na Fada Diouf am na Fada Sow am na Fada Diaw am na Fada Jaxate am na Fada Keita am na Fada Fada sant yëpp yàlla baaxe na ma ci à travers le le Sénégal ñu jóge ci ethnie yu bari mais jóge aussi ci ay am di jàmm ak ay euh, xarit ak i ak i ak i ak soppe parce que nag man ku bëgg a Trudeau la waaw euh, man bëgg naa ñaar bëgg naa Trudeau bëgg naa cadeau waaw ki ñëw et cetera loolu kenn ku nekk am na looy looy <laughs> loo bëgg daal waaye nag du ma du tax nag ma woon nit ki ne ko nag <laughs> par ma non non ah, waaw loolu parce que dañu wax da ngay jël juróom-ñaari juróom-ñaari jikkoom man par exemple ki ñu ma tuddee moom leer na ma ne am na ñu bari ñu wax ne damaa tabe leer na ma ne ki ma tuddee laa ko jëlee parce que nag xam naa sama papa sama papa commerçant la woon waaw mais kiñ ma tuddee moom euh, macha allah ab tab la woon na ko yàlla yaram xam nga liberté de création liberté d'expression liberté d'opinion li koy gën a mën a yaatal rek mooy mu am ay support yuñ koy yuñ koy yuñ koy wane te yaakaar naa mu ngi tudd montré waa wane wane wane waneel waneel TV donc mu nekk lu nga xam ne initiative bu rafet la ñu koy saluer di saluer xalifa euh, xalifa Diakhaté yaakaar naa mooy mooy initiateur bi Euh, nekk aussi ku ñu ràññee ci biir euh, presse bi ah, bokk ci kàngaam yi comme li ñu ràññee ci langue politique yi ñu bokk ci kàngaam yi moom tam ñu ràññee ko ci milieu presse bi mu bokk ci kàngam yi ñu koy félicité bu baax di félicité aussi baa Waneel euh, Waneel TV.